sababu daje bi tey mooy kuréel gi ñu samp te ñu mën ko duppee Union nationale de comité d'entreprise du Sénégal ànd daan doole mu nekk kuréel goo xam ne commerçant yi ñoo ko samp mu wër juróomi région juróomi département yi nga xam ne ñoo ne région de Dakar moo xam pikin Tëngéej Géejawaay Kër Massar Rufisque loolu yëpp nag euh, ak euh, géejawaay loolu yëpp nag euh, lii sabab bi mooy ñu fexe lëkkale dooley commerçant yi pour que secteur informel bi ñu nekk état bi d'abord mën leen xam mën leen ràññee ba pare li nga xam ne moom lay jaglal askan bi mu mën a yegg ci ñoom ndax dëgg la kuréel yu ni mel bari na mais li nga xam ne moo ràññaatle kuréel bi ak yi fi ne mooy bii ca base la maanaam ca racine bi ci reenu fa nga xam ne fa la ñuy nasee di noccee ci jënd ak jaay jëflante bi loolu nag ñooñu bu ñu décidé daje organiser wu samp seen bureau régional ne dinañ dem ci région yëpp samp fa lu ni mel dajale loolu yëpp am ko union nationale ndax état bi am benn bunt bu muy jaar pour mën a faj seeni soxla moo xam ci anam yi ñuy liggéeyee maanaam modernisation des marchés moo xam ci anam yi ñu war a jëflanteeg état bi moo xam juuti yi ñu leen di teg moo xam statut boo xam ne war lañ leen ko mën a jox ndax seen taxawaay ci koomu réew mi ak seen taxawaay ci réew mi ndax bu ñu xëyoon benn fan marché tëj Sénégal dina metti trop kon ku mel noonu nag dafa am solo ci liggéeyu réew mi ba tax na ñoom bu ñu demee ba dajaloo am kuréel jëmmal ko tey loolu dañ koy rafetlu te jàpp naa ne président Macky Sall dana ci dugal loxoom ndax bu yàggul jox na leen un milliard te lii bu ñu gënee defarwaat dina gën a mën a am nu muy waxee ñoom kon jàpp nañ leen lu am solo la ñu ngi fal seen président régional assan Mbaye moom tamit du ñàkk su jugee ba jéego yi taxaw dina am liggéey bu mucc ayib boo xam ne dinañ ko def man mii ñu nga xam ne nag def nañ ma aussi superviseur national ci mbir mi dinaa ci ànd ak ñoom parce que développement ak koom fii lay sosoo te bëgg nañu aussi bay suñu waar ci liggéeyu réew mi Thank you.